électorale surtout une élection présidentielle ñaar la ñu war a am c'est-à-dire dafa war a am animation am débat loolu mooy campagne mais léegi ñun dañu évacuer débat bi. bàyyi dem ci animation dem ci animation pourquoi mais parce que ñuy xeex mais seen niveau foofu la yem ñu ñuy xeex mais seen niveau foofu la nekk jël xeer di sànni un militant comme toi. qui veut gagner comme toi c'est que ce, ce niveau foofu la yem et les partis politiques uti cultivent ça parce que ben mais ñooñu ñooñu ñooñu ñooñu c'est eux qui les transporte mënoo nekk chef euh, candidat ñuy sànni xeer fekk gisoo ko donc on cultive la médiocrité euh, dans les rangs c'est-à-dire même boo xoolee si tu vas à l'extrême cest dire que baadoolo yi ñooñu c'est eux qui sèment la merde cest à ki nga jàngul deful dara dañ koy utiliser comme cher à canon moom moo yore jaasi bi paaka bi regarde bien comment on organise on utilise de cette euh, cette jeunesse la dans la violence et ça kan moo koy def c'est c'est les gens qui sont au pouvoir c'est pas l'opposition c'est les gens qui sont au pouvoir am nañu les moyens am nañu organisation bi xam nañu fu ñu leen di jëlee xam ñu comme comment les mobiliser ils ont quoi 2500 par donc ñooñu c'est eux qui organisent cette violence dans dans la campagne électorale hmm. et en général depuis en tout cas man li may observer violence euh, boobu du parti au pouvoir la c'est toujours contre le principal adversaire oui. par hasard yàgg na fi loolu lu yàgg Sénégal la. parce que donc euh, donc c'est ah, donc construit donc violence du lu bees Sénégal. non c'est un système oui. c'est non ce que je veux dire la violence elle est organisée mhm. ah c'est une violence d'un pouvoir politique qui l'organise contre des adversaires politiques c'est une violence politique mais à beneen niveau de de beneen niveau bi c'est que à côté de la violence c'est que il n'aime pas le débat oh, oh, oh. c'est-à-dire débat gêner c'est-à-dire ay mbóot non non c'est le niveau c'est le niveau mooy li mu wax mooy li mu wax cest dire que tu regardes moi je suis déçu par rapport tous les candidats c'est-à-dire nangu que nga bëgg jiite réew nga bëgg a nekk président la République yow tu es incapable de faire l'état de l'économie du pays tu incapable yow lu la intéressé c'est euh, ay axes <laughs> de programme dinaa développer agriculture ñoom ñëpp ils disent la même chose dinaa transformer dinaa industrialiser dinaa indi éducation dinaa dinaa dinaa dinaa c'est des promesses électorales qui ne sont pas fondées sur une étude uh c'est pas fondé ma moi j'ai pas à part Déthié au moins je dois dire la vérité et Mamadou Lamine au moins ils ont eu la précaution de dire que am nañu ndaje seen cadre ils ont réfléchi ils ont trouvé euh, un programme concerté avec leur cadre mais gisuma ko ci Bokk Yaakaar gisuma ko ci APR gisuma ko dans beaucoup de partis ya eu des réunions mais ils n'ont pas élaboré le programme